Sunubuzz TV HD ci toute culture people faits divers sport politique économie benn la fi du maam ci mbirum li ñuy wax affaire assemblée nationale bi itam ñuy wax di wax assemblée nationale naan di wax naan dañ fexe ba président assemblée nationale Macky Sall day wut om day am comme jënd day am comme jaay gis nga ñun suñ digganteeg Macky ay président assemblée nationale ak ay am na majorité ak ñàkk na majorité mënuñoo tàggaleeg Macky Sall ci injustice bi muy def ak dictature bi muy defee réew mi donte dañu ko gagné assemblée nationale mu toog ñàkk mesure teewul lu neex lay def ndax suñu administratif bi moo baaxul suñu justice bi moo baaxul suñu démocratie lépp lu ko neex def ci réew mi ci boppam ñoo amul ay institution yu dëgër ay loi yu ñu respecté ay maanaam magistrat bu bu bu libre maanaam ci ci li may wax daal pour mu gàttal ko gëddal ko gàttal ko. di ko wax sénégalais yëpp mooy amuñu état état bu taxaw buñ dëgër buñ mën a euh, maanaam fondé suñu développement wala suñu économie mu am fii ci Sénégal amu fi loolu nag boo ko xoolee day dem fépp ci maanaam euh, pays francophone yi yëpp noonu la ñuy demee injustice maanaam euh, délinquant scandale loolu mooy suñu problème ñun Sénégal mais bu ñu waxee naan nañ fexe ba opposant bi dina ko ànd benn nag fexe ba waxtaan ak Pape Diop waxtaan Pape Diop Fall amul benn njëriñ loolu yëpp yëpp yëpp yëpp du tee Macky Sall di bu def lu ko neex def ndax lu tax mooy suñu justice bi ak suñu démocratie bi ak suñu institution yi moo amul benn njariñ benn dëgëru ci dara doxu ci. abi de pouvoir nu ko neex def loolu mooy suñu problème depuis 1960 ba léegi président bu fi nekk da ngay doon yàlla di yaali di buur di moom yor police yor gendarme di def di tëj ay opposants di rey ay nit di def boo paree soo jógee dara du ci topp. loolu mooy suñu problème léegi nag suñu digganteeg Macky Sall du ay député du ay assemblée national suñu digganteeg Macky Sall mooy 2024 ñu jëlee ko fi ci lu mu ko jaral nag lu mu ko jaral ñu jëlee ko fi te 2024 tam population bi jóg taxaw nga xam ne nii comme li ma leen di wax rek en tant que taxawuñu ba defaraat suñu institution yi fal président boo xam ne bu dikkee day defaraat constitution bi defaraat institution yi dindi maanaam administrative bi defar defar justice bi lépp normal. en tant que amuñu loolu ci duñu développé ndax duñ am moom suñu duñ am souveraineté développement duñ am souveraineté économie duñ am souveraineté maanaam justice dara du am benn président bu am kii rek moo mën a ñëw taxaw dëggal boppam defaraat institution yi Sénégal door a mën a développé waaye na ay euh, assemblée nationale bii ñu jëm ak amu ci benn njëriñ buñ même buñ amoon majorité du am njëriñ ay wax la doon ay slogan wax la doon ci kaw ne mais teewul la la ko bi ci defal ak li muy def ci ak coobare maa tey dara mënu ko dindi assemblée nationale majorité ñàkk majorité assemblée sax mënu koo tee mu def ko lii ma leen dox la suñu diggante ak Macky Sall daal la ciy dox mooy 2024 mu jaay ñu bakkanam ñu jaay ko 2024 mu jaay ñu bakkanam ñu jaay ko suñu bakkan mu abal ñu wala ñu bàyyi ko fi ba faaw lii mooy solution bi mais amul beneen wax amu ci man a Gueye lii laa gëm ay nan ay loi ak respecte loi amu fii respecte loi faale loi lu ko neex lay def lu ko neex lay utiliser loi bi.